wala yeewal ci talay sërët yi gaynde guy bëngeel jóge fa dëngal fan la jëm jaar kokki jaar Louga ñëw ndar wecc ci safar wara a doon euh, fukki fan ak ñaar ci mois de août la sëñ Tuubaa ñëw ndar ñu tëye ko 38 jours bokk yi nañuy wax nit ñi sëñ Tuubaa te bàyyi tappale yi ak caaxaan yi ak benn benn bi sëñ Tuubaa mu moro sëñ Tuubaa waxuma ci baat waxuma ci dara waaye dañ def ci jom ba sëñ Tuubaa dégg ci àdduna bi misli shay lam nasma xadisa wala fi saari fi dafil qadimi nopp mu ne dégg na lu ne ba mu des amul benn yoon la te noo ko am moom sëñ noo ko moom moom rek ko fi sëñ Touba jaar ku fa mas a jaar 38 jours boo demee ndar dañ naan la sëñ Touba moo kàmbal ñaari rakk biram ndar sëñ Touba moo tontu góorloo da ko kàcc ñu téye ko 30 minutes yoo xam ne boole coono keroog dañu ko attee 5 septembre dañ ko nëbbu kenn xamul fu mu nekk jàppoon nañ dañ ko faat tey bi mu dëggal ba Cheikh Ibrahima Fall Babou Mouride dina mooy def ay recherche bu gëstu ba xam fan la ci am wax su ma ndaxal jihaaran fii safinatiha tanhu Ndakaaru bi idni mu'minin abadi foo benn laxase ginnaaw ba mu mabbee kat xoolal xul huwa laahu ahad jim signé moom moo wax moom Sëriñ Tuubaa moo ne sos yi ak nar yi ak fen yi ma fekkoon yi wet yàlla teg ko man Ahmadou Bamba pédéseeru xul huwa laahu ahad laa ko man hadam maa banaahu kullu man jaa min alfira bi xul huwa laahu ahad kon laqad aqamta bi nar hiinan tasiiru biha baa dalaali min ahli shakki wal badal borom fanweeri fan yooyee ak juróom-ñett moo jógee nar nag jihaadan fi sabilillah tan hu Ndakaaru fan lañ ko jëmee Ndakaaru gaal gi sëñ Tuubaa dugg toogul ci bank ndax dugaluñ ko fi ñuy dugal nit ñi fa ñuy dugal mala yi ñuy dugal sëñ mu boole deboru ak meebu ndar ba Dakar ba mu ne jëmm keroog fii alxames sëñ Tuubaa jooju ci at 1895 Cheikh Amadou Bamba nee na bi muy agsi boo demee ci jasaawu shakuur al atuuf fi jawaarin abdul latif fa ci tubaab nekk ci boppam fa mu toog dane ak a neexoon ma am lu ma doge sama koor ngir guddal sunna ak a neexoon ma am lu ma doge sama koor ngir guddal sunna nee na yooyu wax ma nañ dem ab nga ne neex naa ko sa koor sëñ tubaab na néeg la bopp koo nam ci moom ab dund doo ko fa tàmbal tubaab bi dañu koo natt ba boo duggee doo ci foo war a teg sa sànq xotti bi télégramme bi nekk ñu fuyee boole ko gas kër ba léegi am na ci boole ko sobe ba mu bàyyi dégg te lu mu la mën a ci xet nekk sëriñ bi yooru tànkam na ko teg ci xottu bi géej xam ne lim ko teg ñaw nga la te jaayante na lu benn gannaaw mu bës ba rab ba gasar mu teg beneen ñu boole nag kam mu ne allah rab yi dem ci mbag yi mën na julli mën na kabar sëriñ bi mën na kabar ngir kattan mu ne tanziilu man min nii lahul azkaaru maa alladi waqaa fi nakaaru la ma fa daj nam méttee alquran rek la ma ko teg ñett ñaari dugg yoo xam ne lékkul naanu ci lu lee boromam moom si Ahmadou Bamba wéet fa mel moom jëm ay xottu jigéen di ko jam di riixa ci tànkam lu tax ba ki yàlla may mu taxaw ci xottu jigéen di ràbb di tudd yàlla di jàng alquran yàlla lu ko may jumaa ju mel nii ko def lu kenn deful am lu kenn amul ajra man ahsana amala gis nga mbër bu daanee dañu koy bak mbër bu daanee dañu koy bak nette li jaroo lay Cheikh Ahmadou Bamba doo doo rus waaye bu taxaw ci xott bi dañu ki ràbb fanaan ko ñaari bëgg naa lu dul ci mooy leeri boromam ñu génn ko jàpp ne li yàlla dina mu gën a dëgër foofu dong la waxee ne ila dakar dalika almabida wa dalika alalila wa sabuta taalat la jihaadi bi arbaina suma lakinna baadima bu ma xalaatee ñaari guddi yee fanaan fan xalaat fanaan ma xalaat bi joxe liggéey sama xel bi dem li ma mooy bëgg jihaad waaye rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam moo ma tere kenn tey woon ci nekk xat fii la yàlla may jumaa ji jumaa ji gën a rëy ca penku amul ja gën a rëy ja sawwu ahmadu fu mu mas a kambat jumaa fa ne fu mu mas a jaar jumaa fa ne mooy man mooy raw aller et retour amul morom ndax alxaafiru bidaati sawdaati fi abadi wa raabiu sunani baydaati bi man bi li imam sunnat rasulillahi lay yëkkati mbàpp bi daa daanal ko mun a ñëwee waaw nit bu fekkee daa amoon ab bu kës bu xat bi jullee ay xott bi ngeen di la jam tey nga am hectare yu yaatu yu rëy yu sori te kat say juma say taalibe yi ko liggéey ab edd bari yi woo tan amuñu lettre bu bàyyi ko arab saudi international juróom fukk ñaar fukk ñett téeméer man mi ne man mi yaa noonu neen wetti liggéeyal Bamba yow borom nii bu xam yaa moom kii sëñ Touba am na sëñ Abdou Karim nee na maa fi bariyati man jaa yu maa fi luhu ilal ka duuba lesi yax bi ka abad nee na bu la doon laaj ci dàq wax lu dul dëgg ci àdduna mooy ki leen sëñ ba diwloo yëmutul kenn misaalum Sëriñ Tuuba mosul am ginnaaw nabi te ab xarum dudul ñëw bu dee nag Sëriñ Tuuba kon nañ ko jàpp te xam ne yàlla fay na Sëriñ Tuuba moo waxal boppam ne wasala li xatta an jazaa'u la mu xalladan bi xadri zaatillah ni yàlla toll ni na ma fayee te ni bi yàlla yi nekk la bi nekk fekk yàlla ngi sama fay def nekk ajru lladi maa indahu laa yanfad wasala yi wa maxtaraahu nafad kon mbokk yi sëñ Tuubaa ngi nii ne xaw wane sëñ bu dee xam-xam moo raw ñëpp xamoo ko taalif lu toll ni lim taalif te terewu ci biir këram ne ci njabootam di yónnee ndox nee na bu ma mësaale ca géej ga buñ ma dee jàngi ràbb bàyyi xottu bi dee bàyyi ñuy baxal di deex di ma sotti lu mu tàng tàng bu ma nee cëpp xale nag resul leen tàng muñ nee na mbégte moom mooy fàtte loolu yi daxaan jaay bi xabaaxaa ji li man tabu siiruhu dara rek wax day ñett tàng moom mooy fàtteloo du nax kenn yi lu ne am na lom fu doon bu seeree naan li may lom dama des bu kenn bañ a dugal ka dugal mooy l'homme du match moom la gars yi wër ci machine yi bu di ko kapp kappal bu contre son camp amee nag réserve vocation am camp ba kaa am tiir sienneet yéeni góol bi am bokk yi xam ngeen li xew moo tax ñëpp a war a jóg di ko apprécier naan jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba am nañ ma dañ koy wax armée yi la suul danañ maase naan jërëjëf jëfal Sëriñ Tuuba nekk naa woo su xol jeex ba te man dara ndax alamu man xasadanii laa yanqalim wa bisu man yuhibbunii laa yanqalim inna alladi yaba sururi yakmadu amal la si yaktamuhu wa yaxmadu Sëriñ Tuuba ne ku bañ saa mbégte ci dang dang dee ngay def ku saa mbégte neex da ngay sant moo tax ngay gis murid bu yor ñaar dërëm nga ne ko noo def mu ne sant Sëriñ Tuuba bëgg nga ko waral ndax xamul ñu la ab daw lii ko wajjaha wala القدر بقدر كل فضاء وكنت لي إلى الجنان في صلاة maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm Cheikh Moustapha Cheikh Abdoulaye Cheikh Cheikh Ibrahima Sam maa ngi leen di gërëm ndax jataay bi dafa daw yaram dafa sedd xol gis nga bu fi ay wax ko wér réew mii bu ñu bëggee jàngal diine fu nit jàngee ñeenti hadiis kopp koppal sa sikki naka wet naan bi daag nangam jumaa ju mel nii duñ ñu conditionné duñ koy périmé ndax financement néewul koo xam ne ba nga juddoo ci alxuraan bi juddoo loo am jumaa nga ko tabax nun bu defoon ay immeuble baa ñu def leneen ñu duñu financé ñu mën ko wax waaye jumaa ji li muy réeré garab yi ñu def fi ne ku doo fay koo xam ne loo am ci mbir yaa dafa jàll waaye dama ne borom xusuuli xel la wala lu ali tafaaraxat li man taxi la ni an hul man yi qasiyu rasulullah yoo taxoon a génn moo tax kuy wax bii kuy wax sunna sëñ Tuubaa wax Tuuba Daaru Salaam Daarul Muxti Daaru Saam daaru nangam daaru nangam daaru nangam daaru nangam dëkk boobu sëñ bi waay jumaa ba nekk gën këru ko fa nekk boo ñëwee kër kër sëñ Muntaxa Tuuba la ñuy rafet tamit jumaa Tuuba jàpp la kon ñoom lu ñu xam diine lañ koy jox 37 milliards nga taxawal ko université bokk lu koy jëggaale ngir ko la jox ngay jàngale nañ bàyyi xel ne sëñ Tuuba mii du ku ñuy gën du ku ñuy foyee kuy wax na wax dëgg te yàlla tax yàlla xam na ne maa ngi seere ci yàlla ña dàq football sax bu ñu gañe woon bu ñu ñibbi si dañ naan lañ leen tabatal ndax ndamul réew mi équipe bee gañe ki jiite réew mi bu demoon fenn def ko discours ñu takkal ko garaat dañ naan diplomatie moo avancé mais wallahi lawlaahu ma tanaziluhum ala tariqati iblis dama jaar bu dul nag Cheikh Ahmadou Bamba ñi jokk jokkal diine woote diine iblis li moom man ndax 1895 maa ngi lii daal daal ñu ne yëpp en deux mille huit mille huit cent quatre-vingt-quinze la conquête du Sénégal était pratiquement achevée tout se sont seulement passé sous le siège du chef de Mouride Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul tamit bi ñëpp ñëpp a ngi fi maa ngi ñëpp a ngi fi daal sëñ Tuubaa nag toog leen ma ñëw wolof dëgg yi ne la nooy dara du yàq moo tax benn naar nee na xawaari u yegtika min haabari woo ala xayra xaalin bax damaa rek bal baxra boo xamul ci moom dara mooy ki dem jëli sat sëñ Tuubaa mën na si na mbay ci yaay ma mbay mu ne ko mbakke mu ne ko ñaar bu ndee bële kàddu ñu dëkk ya ka man xam na kan man xam na rombee wees kàddu ñu dëkk ja ka man xam na kañ man xam na roccee wees tubaab bi moom bi ne gis ma ak moom xam na ne lu ñam daan song te xam na ne bu ma songee du song waaye mënuñ ko ko ci loxo ma ne ko foo mbakk ma daan beneen boobu nekk sëñ ma ko daan daan gaa ngi nii gën a lële ana tubaab bi ñu woon ay monument lañ leen di tuddee ngi na sang bu ma kenn bu ma kenn dagg na dama ne wax ji jërul muy bëri dajale addi sëriñ Tuubaa jox ko sëriñ Gaye Messere bi kenn képp koo xam ne déggam déggam déggam sëriñ Tuubaa jox ko addi sëriñ Tuubaa non suba damay am plateau suba damay am plateau suba